Euh, léegi nag booy xool disposition yi loi de finance dafa wax ne dinañ pouvoir réglementaire dina wax euh, yan anam la ñuy euh, appliquer mesure bi mais mesure bi dugg na ba pare assemblée nationale voté nañ ko donc tey kenn mënul wax ne mesure bi am na donc loolu moom maa ngi koy wax mu mu xam ne lu dugg la maintenant Euh, mesure opérationnelle yi le pouvoir réglementaire war a teg en place maanaam euh, fan la ñuy jëlee affaire beeg naka lay duggee. yan produit waaw mais euh, taxaw na ba pare léegi nag une à quoi à mon avis am nañ droit en tant qu'organisation de défense. Euh, des commerçants ñu jóg yuuxu balaa mbir mee jàll lii direction générale des impôts et domaines def itam au passage maa ngi nuyu suma frère yooyu ak suma sœur yi nga xam ne yàgg naa liggéey foofu surtout ci direction législation bi euh, li ñu wax ni euh, peut-être pare-feu la maanaam defence la rek pour coow li xaw a calme tuuti mais pour man Sénégal bu ñu daan jël mesure fiscale dañuy waxtaan ak ñi nga xam ne mooy contribuable yi Euh, organisation patronale yi organisation syndicale yëpp ba d'accord ci affaire bi euh, doog ko jàllale lii dafay mel ne euh, li ma comprendre en tout cas ci presse bi dafay mel ne gars yi waxtaanuñu d'abord ak commerçant yi te man dama jàpp ne 12 pour cent même ci chiffre d'affaires dafa bëri loolu bu fekkee da nga ko jël nga ne da ngay lutter contre le secteur informel ou contre la fraude fiscale ak lu mu mën a tudd mhm. bëri na parce que 12 euh, pour cent sax est-ce que marge yi commerçant yi am egg na foofu parce que dafa bëri léegi donc loolu bu fekkee danga nga bëgg a appliquer taux boobu ci chiffre d'affaires loolu pour man impôt bu métti la tey boo ko defee dafay mel ne donc commerce bi surtout ñi nga xam ne foofu la ñuy jaar ñoom amuñu ay dossier formel yu ñuy déclarer ñiy jaar ñi nga xam ne commerce informel bi ñu koy tuddee ñooñu ñooy gën a sonn tey ci contribuable sénégalais yi pour man normal ñu jooy fexe ba loolu ñu wàññi ko ndax mesure la boo xam ne buñ ko bàyyee mu jàll dina leen entraver te li ñu wax itam kenn du ko weddi effectivement ñoom du ñu toog rek ñu leen di ñu leen di ñu leen di ndóolal comme ça dañ koy euh, jàllale ci consomateur bi. loolu ñëpp xam nañ ne impôt moom buñ ko tegee opérateur économique day fexe ba kay utiliser produit yi mu jox ko ko mm-hmm. donc tey mm-hmm. consommateur final bi moo nar a sonn. ci impôt boobu donc man jàpp naa ne effectivement direction générale impôt impôt et domaine nee nañ loolu euh, dañ ko kiiniir mais man nañ toog waxtaan mais problème bi mooy pour man démarche bi lañ waroon a defar comme tradition bi ñu yàgg am ci mbiri euh, norme fiscale maanaam waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoo ko seq. donc euh, mesure bi. mais lan moo tax direction direction des impôts démentir information bi. waaw non mais xam nga xam nga coowu Unacois bu jógee surtout contexte bi ñu nekk nii. Euh, ñu wax ne prix yi dina yokk te prix yi ñu xam ne déjà électricité bi euh, président annoncé ne effectivement subvention bi ci nekkoon daf koy génne yóbbu ko dans l'électricité rurale euh, nit ñi xam ne prix électricité bi dina yokk parce que loolu c'est une mesure apparemment bu ñu jël ba pare formalisée mais c'est normal que waa UNACOIS jóg Euh, taxaw ne lii euh, dina metti ci nit ñi. c'est normal que direction bi reculer également. dafa reculer wala wala. waaw pour man pour man euh, administrer noonu la du du du du xeex da ngay fexe ba mesure bi ngay teg nit ñi nangu ko pour man loolu ils sont dans le rôle mais nag pour man erreur bi mooy lan moo tax waxtaanuñu. ba buñ ko génnee coow lii du ci am deuxièmement itam affaire bi dafa xaw a rëy nag parce que 12 pour cent dafa metti xaw ma yan statistique lañ utiliser wala yan chiffre lañ bëgg am ci recette ba def 12 pour cent pour man impôt euh, waruñu jël seen coono ñu ñu wàññi ko noonu cest à ay fonctionnaire lañ dañ leen a tàggat bokk nañ ci fonctionnaire yi gën a xereñ ci mbirum fiscalité ci Afrique loolu man dama ci xam dara donc tàggat boobu ak liñ leen di fay moo war a tax ba ñu fekk ci commercant bi xool li muy def jël impôt yi ñu war a jël mais bu fekkee da nga taxaw douane rek ne ko jaar nga tël. 12 pour cent loolu dafa métti bor yi nga xamante ne Sénégal am na ko moo tax xëy na ñu bëgg a nar ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci yenn secteurs yi lu ci mel ne jënd ak jaay. waaw li ngay wax nii dafa dafa dafa am solo parce que mesure la boo xam ne day wane rek mbir li muy wane mooy taux d' taux de de déficit budgétaire bu Sénégal dafa yokk 3,8 pour cent. Mm-hmm. egguñu woon foofu UEMOA 3 pour cent la wax ñun ñu teg ci 0,8 pour cent donc affaire bi dafa garaaw dafay dem ba jege 4 pour cent. Euh, voilà euh, encours de la dette bi métti na. donc pression sur les finances publiques dafa métti tey te li ñu teg direction générale des impôts dafay yokk tout le temps. Euh, daaw objectif de recette yi dafa yokk góorgóorlu nañ ba daanaka atteindre nañ ci lu bëri ay milliards lañ teg ci li ñu doon def. 2500 mhm. milliards ñi ngi koy tudd mais loolu dafa metti te économie bi attanugu ko donc pour man il faut ñu tey xool naka la ñuy régler suñu problème finance publique te bañ a jël lépp teg ko ci ndodd administration fiscale yi muy muy douane ak ak ak impôt domaine. parce que bu ñu ko defee dinañ euh, dinañ dinañ dinañ gaañ askan wi te itam dañu war a xam ne. Euh, pression sur les recettes boobu noonu day yàq économie euh, deuxièmement euh, filet social maanaam ni ñu war a protéger ñu pauvre ñi loolu secteur informel daf ci jouer rôle bu am solo parce que nag ca àll ba euh, ñoom ñoo fay egg mooy commerçant yi nga xam ne ci ci ci àll ba lañ dëkk di jàppale famille yi ñooñu bu fekkee danga leen a teg pression fiscale ba talatuñu loolu Sénégal ci boppam mooy gën a yëngatu lu raw li mu nekk nii man jàpp naa ne Euh, euh, politique fiscale politique bu war a am prudence la. kenn du ko defee rek à base de taux et de chiffres nañ def ndànk.